tàkk-tàkk bi benn vieux bu ñuy wax maane uh-huh. te mu nekk fii ci Pulo Fuuta yi moo moo ñëw nee na dafa bëgg a nettoyer fii ba mu set sotti fi di nga maam ay mbuusu permiable pour di ko dem di commercialiser uh-huh. bon léegi bu muy nettoyer fii nag mu taal fee ngelaw li nag dugg di nga maam ci kii bi dem taal ay pneu yu nekk fële pneu yi dem ba takk taal sama néeg say man maa fi defoon sama néegu bopp ah tout est brûlé sama rajo samay dégg nga maam eh, portable sama dégg nga maam xaalis douze mille cinq cent amoon naa ko dégg maam sama saak bu ma wékkoon noonu te diggante démb tey rek laa ko liggéey taal na ko. bi ko taal moom fële la dëkk man xaw ma sax fu mu dekk foofu mais maane la ñu koy wax rek. waaw bu bu mu koy taal fekkee wu ma ko mais en pas bi daf ma yónni woon. xaar ma woon le preuve xam nga dafa bëggoon toog jimbo baa ngi nii. xam nga loo gis rek tu montres les preuves tu montres les preuves quoi pour en cas quoi gis nga waaw léegi nag bu may yónni nag ni en partant noonu ni may demee en partant ma gis waa ji di dajale fii man nuyu ko ma ne ko salaamaaleykum mais nanguwul sax nuyoo noonu mu ngi ne ngummu nii rek ma ne ah mais comme comme exactement man mënu ma xam exactement lan la man tamit ma dem en partant noon bi ma retournee nag ñi may ñëw bi ma tolloo fee en 200 mètres ma gis nag pono bi di brûler saxaar bi fumée bi. si laa ñëwee nag tombeel paa bi di génn moom sama papa la quoi sama paa bu baax. waaw loolu laa wax ersan gars yi nekkoon si bi am na ñu yor portable mais doonoo doon filmer mais ñoom woote wun heureusement sax teel ko kii waaw Mané la waa ji tudd il est là tout près Mané ñii ñëpp xam nañ ko bu baax maane